salaamaaleykum soxna Astou Boury Mbacké la ñu dalal euh, mu nekk fii ci Touba di setu sëñ Basirou di setu Serigne Touba di setu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ndax moom ku ko xool rek xam ne Baye Fall piir la identité am la mu fier ci lool tamit di actrice de développement di acteur politique tamit actrice politique nekk actrice sociale. di ku dëkk bi ñor moom euh, ku dëkk bi ñor koo xam mën nañ koo seede ci yu bare bare soxna si tey euh, ñu lay nuyu bu baax di la ziar ci màggal gi di la ndokkeel bu baax a baax mm-hmm. euh, di la ñaanal tamit nga fekk màggal yu bare bari ak say kilifa mm-hmm. ak mbokki taalibe yëpp gannaaw buñ la nuyoo mm-hmm. ziara la ci màggal gi ñaanal la yow it xam naa boo ñu nuyoo dañ lay ñaan nga ñaanal ñu rek wala ñoo dugg ci waxtaan wi ah yow moom dama lay ñaanal ndax sama xarit nga ndax damaa gis ne lu baax rek moo la ñor te Sëriñ Tuubaa rek la ñor maa ngi lay ñaanal yal na yàlla defal la jàmm may la gudd fan ak wér defal la wërsëg bu bari nag bu yaatu ci barkeb Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall te yaakaar naa li ma lay ñaanal incha allah dana am incha allah waaw soxna si tey bu ñu la doon laaj eh, sa bilan ci eh, màggal gi mm-hmm. gannaaw ba nga nuyoo taalibe yi mm-hmm. uh, jaajëfal leen mm-hmm. sa bilan ci màggal gi bu ñu la ko doon laaj ci lu gàtt rek loo ñuy mën a tënkal waaw sëñ Baara ginnaaw ba ma santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sant sëriñ Tuubaa bu wér waaye sant Seex Ibra faaw nag ma ñaanal sama sëriñ bi ba pare sant ko yit nag doo ko dugg ci waxtaan woowu muy sëriñ Muntaxa mi fi nekkal sëriñ Tuubaa di ko ñaanal aw fanam yokk lool lool lool lool lool te ak wéram yokk ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa rekk ko ñor di ñaanal sëñ Seex Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall yàlla yokk wéram te yokk aw fanam lool ba mu gën a mën bi nga ne ma sa bilan ci màggal gi ndax bilan wu màggal gi kooku dafa am ñu ko yor te yaakaar naa buñ ca tolloo danañu ko wax waaye yàlla dafa dogal ma bokk ci dëkk bi di sëtu sëriñ Tuubaa ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi juddoo fi yaroo fi màgge fi li fi ñëpp am ma am ko fi wax dëgg yàlla yi dëkk bi ñor ma lool dara ñor ma lu dul waaye dara it ñor ma lu dul dëkku sëriñ Tuubaa bi bilaaw màggal gi boo ma ci laajee man lan laa ci teg muy sama xalaat la ko jiitu mooy kontaan ci màggal gi lool sant ci yàlla bu wér a wér a sant la ci sëriñ Touba suñu borom waaye nag wax dëgg yàlla am ci mbégte ak contentement bi ñu mënee fexe ba dalal suñu gan taalibe sëriñ Touba yi ñëw ziyaare sëriñ Touba taalibe bu na dem ziyaare sa sëriñ ñu ñëpp ñu àndandoo santale sëriñ Touba yàlla loolu moom mooy li nga xam ne moom laa ci njëkk a constaté mu neex ma loolu sëñ Baara waaye ma am ci tuuti nag yoo xam ne daf ma jaaxaloon mu ub sama bopp bi ma di ci xalaat parce que dama ne jëmb jii nga xam ne moo fi nekk muy président Macky Sall pour man ngërëm lii ko ku baax kii gërëm yaakaar naa ne xanaa warul woon a benn intérêt ci taxaw di ay ñoñam taxaw di saboote wala dara. ndox di manqué Touba daal. ndox mi manqué Touba parce que loolu dafay mel ni sabotage la. dama gis ne wax dëgg yàlla. waxtu wu ne damay wax ne nit ku ne ki ngay teg fi barab danga ko war a segg saytu ko xool ko xool mooy kan ndax képp ku ko mere rek du ko tudd du ko taas yow lay attaqué tey jii lii nga xam ne moo xew ci màggal gi mu xaw a metti torop mooy robine yi tëj manqué ndox kenn ku nekk booy mer président Macky Sall ngay mere benn ci man parce que bërki démb wax naa ko fii sama émission waaye tëréewut xalaat naa ne président Macky Sall nekkul nit ku soxor am na ñu ñoo xam ne nag seenu taxaw dafa des waaye lii nag arrêté wu ma dallu ma ndax man lépp lu ma ñor dama koy topp ndax dëkk bi lépp lu fi am rek daf may ñor mm-hmm. fan la yëf yi tëje ak lu xew bi ma ko toppee ci suuf yi wër laa ko jëlee mm-hmm. muy association yi nga xam ne dañuy jaay ndox mm-hmm. moo xam ci dëkk bi nag lañ dëkk moo xam dañuy jóge ailleurs di ñëw ci dëkk bi dama cee dama koo jële fu wóor ne ñooñee ñu bëggee seen ndox di jar tax ñu jaar ci suuf def seeni pexe fexe ba tëj wan yi soxna si li nga wax nii lu garaaw la waaw lu garaaw la loo xam ne nii te dégg naa sa biir wax nga ne ci source yu wóor nga ko jële source yu wóor laa ko jëlee léegi ñooñu mhm. kon ni ma déggee sa wax mooy seen propre intérêt seen intérêt poste da leen a gënal intérêt généralu màggal bi seen intérêt poste da leen a gënal ndax ñàkk yeewu parce que wër sa jëru yàkkamti parce que ku ne rek jot ci sa wërsëg balaa ngaa faatu soo xëyee suba yi balaa ngoon a jot di nga jot sa wërsëg kon def loo xam ne dangay lor doomu aadama yi wala ngay sabooti ci dëkkub Sëriñ Tuubaa bi dara àddina jël ko parce que wërsëg woowee xamoo tax di nga ko jël ñoom déet xamoo fu lay féete bu ëllëgee kon daal dangaa bëgg am na ay lobi daal am na ay lobi yoo xam ne ñoo joué rôle bii ba nga xam ne xooluñu ci sax ñoom jubluwuñ ci sax ndox manque ci dëkk bi mais li ci jublu mooy maanaam seen poos hmm. seen ndox yi ñuy jaay na jar te loolu rafetul jaaruwut jaaykati ndox yi du teree nag ñun ñu màggal ma gis ne la ca topp tamit mooy ku ci mel ni service d'hygiène waaw dañu gis ne service d'hygiène waaw dañoo jàpp ñu bari ñu yor ay marchandises yoo xam ne dafa primé waaw léegi ban jàngat nga am ci nit koo xam ne mhm. bis boo xam da nga faa war a defaroo nga dem defa def loo xam mën na laa yàq-yàq ñeneen dëgg la léegi yow ban jàngat nga am ci nit ku mel noonu waaw jàngat bi ma ci jàngatee sëñ Baara mooy ba tey rek ñooyam ndax ña dem fekk yi ñu tëj ko ak ñi nga xam ne ñooy jël ay ñam yu périmé di ko dugal ci dëkk bi di ci profité pour jaay ko mu génn seen loxo ñu duufal seen poos ñoom ñooñu ñëpp ñoo yem àtte ndax ñi nga xam ne xañ nañ ñu ndox ba tax ñu sonn torop ci màggal gi du ñu teree màggal la ma waxoon rek ndax bu ko jaroon sax dañuy dem gas ay teen génnee fam ndox màggale ko kon loola du ñu tee màggal mais ñooña dañuy lor seen bopp ñii nga xam ne dañuy jël ay ay ay yu permis di ko dugal ci dëkk beet ñu ngi lor seen bopp ndax dafa am lu Serigne Touba waxoon Serigne Touba dafa waxoon ni lépp loo xam ne nit nar na koo indil boppam indi indi gàllankoor ci dëkk bi boppam la koy def nan ko seetaan ndax bari na fi ñoo xam ne ñu ngi doon def na sax bu noonu ci dëkk bi di fi indi ay lobi di fi indi ay gàllankoor ngir seeni poos diis tey jii am na ñoo xam ne ña ca kasa am na ñoo xam ne ña nga feebar ba ni laaj ci tëdd seeni kër waaye am na ci ñoo xam ne faatu nañ bu yàgg yóbbaale àq te loolu àdduna jëlu ko kon damaa bëggoon xeeti lobby yi ñuy def sans xalaat sans calcul lor ga ñuy lor doomu aadama yi bu ma sañoon ñoom ñu delloo seeni xel te xam ne am na àq ju ne ci biir ndax sëñ Tuubaa du moromu kenn soxna si wax ji est-ce xam nga ne am na lu la ci mën a fekk ci ay ñoo xam ne mën nañ la ci attaqué mën nañ la cee wax yenn wax yi mm-hmm. ndax xam nga nit moom ku laal intérêt am lay bañ merci beaucoup ndokk bi nga ko waxee ku laal intérêt lay bañ man damaa bañ man tam ku laal sama intérêt te buñ ma attaqué suñ ma xasee suñ ma saaga suñ ma sax dóoree loola jaral na ma ko parce que moo ma gënal may seetaan xeeti lobby yi ñuy def nga xam ne mën naa yàq lu bare bare ndax dangay xool sëñ bi séentu naa ci lépp mhm. séentu naa ciy dóor mhm. séentu naa ciy xas séentu naa ciy saaga séentu naa ciy attaque mhm. mais ba tey rek dëgg mooy mujj kenn ku ne xam nga ne doolee mën dëgg waaye Serigne Touba moom dara ëpp ko doole te dëgg rek ñu mm. te sëñ Ba nga xool gis ne est-ce que seetlu ngeen leen waaye ñi nga xam ne dañoo jël yu périmé andi ko dugal ko ci dëkk bi mm. di ci profitoo san calcul sans xalaat xooluñ ci dara na seen poste di diis mais ñu xamuñu ne loolu mën naa jur musiba musiba mu muy jur mooy lan mm. ki nga xam ne jàngul xalaatu dara lu dul naa daw dem jëndi lu ma ñëw terale gani Serigne tubaay ñooñu mën nañ koo jënd indi nit ñi lekk ko wala muy lu ñuy naan wala muy leneen loo xam ne mën nañ koo jëfandikoo ñu lekk ko mu jur feebar waa léegi su juree feebar du ñu indil problème corona ci dëkk ci contexte bu affaire bi du ñu indil du ñu ne waaw kay tere woon nañ màggal gi màggal gi li màggal gi laa mbooloo ma fa daje nangam dal na leen corona ni te fekk mbir ma mën naa bañ a doon corona mën nañoo indil sax musiba moo xam ne ay nit mën nañ caa faatu uhuh. kon ñiy def loolu nañ seetaat àqi doomu aadama xam ni wax dëgg yàlla war may dëkk bi dafa am lu mu laaj war may jullit rek ak war may doom aadama dafa am lu mu laaj warul warul ci jullit warul ci benn doom aadama rawatina suñ dëkk bu sell bii ci Tuuba ñi koy def nañu xoolaat bu baax la ñuy def maa ngi interpellé ñi nga xam ne ñoo yor comité d'organisation màggal gi macha allah fa tabaarakallahu euh, nit ñu def seen liggéey lañu nit ñu taxaw lañ bu wér ndax sëriñ bi képp kum tànn ba teg ko fi rek kooku nit ku mën liggéeyam la nit ku def la ko war la waaye ñoom dama leen di ñaan bu ëllëgee nañu ni dimbali ngir yàlla ñu seet ay nit ñoo xam ne ñu leen doy lañu ñu teg leen fa forage fa wan ya ne point yu sensible yëpp point yëpp ñu yóbbu leen fa teg leen fa ñu toog garde ko ba màggal gi jàll parce que booy xool nag nit ñi dafa mel ni kenn ku ci nekk sa intérêt bopp moo la doy ak sa poos duñ xool intérêt mbindeef yi duñ xool ak ah intérêt taalibe sëriñ Tuubaa yu dëkk ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi xam nga ne loolu rafetul te lépp nag day daal di versé waat ci ndoddum président Macky Sall man nag du ma tooñ du ma tooñoon nit damay taxaw ne ko baal ma ndax lii président laa ci mere woon te dem naa ba ci biir ma xam ni defu ci dara seulement nag benn côté war naa mën a yokk tuuti vigilant ci ñi nga xam ne ñoom la fiy teg que am na loo xam ni ñun am nañ ci part de responsabilité mais moom i tamit am na ci côté boo xam ne war na cee mën a jéem kém lay kàttanam mooy moom tamit seet point yu sensible yépp ñu xool ay nitam teg leen fa bu ko defee ñu liggéey ca seen kémtu lay kàttan def la leen war seen kémtu lay ba mbir mi mën a jaar yoon kenn du xas kenn kenn du ŋàññi kenn te kenn du ci jële wéradi kenn du ci jële feebar sëñ Ba kon de xanaa lu may déclaré xanaa intérêt personnel bi sëfoor itam war nga leen a ñaax ci njëkkante bi ndax gis nañ am nañu ay quelques morts ci tali bi donte na ku nekk ku euh, nekk fi yàlla tudde sa bakkan fa nga koy jëlee mm-hmm. waaye nag euh, nga ñaaxaat chauffeur yi rek waaye ñu ngi ñu ngi leen di ñaaxaat ñoom tamit chauffeur si ndeysaan ndax mooy li ma wax rek yàkkamti wërsëg day indi nit lu ne donte xam nañ ne lépp lu am yàlla la donte xam nañ ne képp ku yàlla tudd sa bakkan ci tali bi lay rot wala ci programme màggal Tuubaa gi lay dem kenn mënu ca dara mm-hmm. waaye nag maanaam rek xaw ma nu ko olof yi waxee ndogalu yàlla boo gis tànk baa ngi fay tege ñoom itam nañ ci góor góorlu bu ëllëgee ndax tey mu mbéy na waaye nañ ci góor góorgóorlu bu baax di daw ndànk di dal ndànk la Sëriñ Fall waxoon waaw loolu daal loolu laa ci am lu may leeral waaye daal wàllu ndox bi moom wax dëgg yàlla saama fee xont sama fee maal te saama sama gene kon de ñëw toog ca wan ya nag moom nga xam ne xam nga ñi ko def moom mënuñu koo def ñoom doom waaw xam nga lobi dafa yaatu te mën naa fu ne mën naa demee nu ne en tout cas daal nañu sooraale ni am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne di lébu lébu di def ay lëbi di xool seen poos di def naka sa dul noona ña nga ca kaso tey àq dal neen ñii faatu nañu ñii ña nga tëdd feebar te amuñu leen faj ndax doole du de dafa am loo xam ne doole du wéy kon nañ delloo seen xel bu baax a baax a baax a te jéem a roy ci Serigne Touba jéem a roy ci Cheikh rek te jéem a roy ci borom dëkk bii di Serigne Mountakha nga xam ne lu baax rek a ko ñoom daray lëbi ñoru ko dara loo xam ne day xajam wala naka sadul noonu wala lu salte ñëw ko loolu laa amoon lu may wax di ñaanoon mbokki jullit yi di ñaanoon mbokki taalibe yi di sant bu baax a baax kon nag ñii def war nañoo bàyyi seen xel ndax ki wax euh, sëtu Cheikh Ibra Fall la sëtu Serigne Touba la sëtu Serigne Bassirou la euh, su ko dara ñoree mu constaté ko topp ko ba gis tànk bi su ko waxee war nañ cee bàyyi xel kii def lu ñaawit war na cee bàyyi xel mm. ndax li mu wax dafa leer. ñi ko doon def am na ñoo xam ñu nga ci hôpital ba tëdd mënuñoo faju ñenn ñi ñu ngi bàmmeel xamuñu luñ fa nekke mm-hmm. ñi ci des ñi ngi ci kaso yi xamuñu kañ la ñuy génn ñenn ñaa ngi tële toog seen kër sax amuñu leen yóbbu hôpital. Mm-hmm. te eh, kon nag di la ñee tey ba xëy suba ñu lay yërëm am na lu ko gën kon nag soxna si ñu ngi lay sant baax déclaration bi am na solo mm-hmm. parce que tamit euh, yittey nit ñi moom ku ci ne rek mm-hmm. lépp lu naqari nit ñi tamit day feeñ ci yow ba moo tax tey gis nañ ton bi nga waxee sax xaw naa dis mm-hmm. euh, ci màggal gi ndax gis nañ déclaration yi nga def yëpp melul nii waaye bii xam naa ne ñor na la lool jërëjëf ñu ngi sant bu baax